المشاة بالآيات والصور asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi seen mbokk imam Abdou mbay fii ci Dakar Géejawaay marché bu bees moo leen di nuyu di ñaan yàlla na yàlla dolli ñu jàmm ñu itam feebar bi nga xam ni dafa daj àddina yépp te itam jaaxal ñu gën a bare ci àddina yàlla na ko fi yàlla jële euh, ñi mu jot a faat yàlla na yàlla yërëm leen dafa leen ajjana ñi mu dalagul yàlla na yàlla wërsëgal leen ba mu leen dal ñii mu dal ci wéreguñu ci wéreguñu yàlla na yàlla wéral leen ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñuy bàyyi xel nag feebar bi njàng mu rëy ngi ci ci nit képp ku nite mën nga cee jànge lu bare ba ca jëkk te mooy bi ci gën a am solo mooy sabab sababu feebar bi mooy yàlla dafa ñuy yar sababu feebar bi yàlla dafa ñuy yar du leneen nag dafa dem ba xam ni ñun dañoo dem ba murtat xamatuñu kan moo ñu bind xamatuñu ñun ñooy kan yàlla bëgg ñoo xamal ni ñun dañ ñoo bind te it ki ñu bind mooy kii moo tax nag mu di ñu yar léegi nag di raxas mond bi yàlla di raxas monde bi ay incha allah daañ ci ñëw ci kanam kii moom ni mu koy raxase su ko defee nag raxas boobu nga xam ni yàlla nga koy raxas monde bi nga xam ni amul kenn ku ko man ku dul moom loxoom moo joti fépp amul nag keneen ku loxoom joti fépp ku dul yàlla moom moo mën a raxas monde bi jotal feebar bi ci mboolem monde bi yëpp fenn desul loolu nag amul kenn ku ko mën ku dul yàlla su boobaa nag bu dee ci ko am ku nit am seetlu nga gis ni yàllay doxale ak ñun ñun ni ñu ragale feebar bi bu ñu ko ragali woon yàlla feebar bi du fi ñëw nii ñuy toppee ndigal yi feebar bi digle bu ko toppee woon yàlla feebar bi fi ñëw nii ñuy moytoo tere yi feebar bi tere bu ñu ko doon moytoo li ñu yàlla tere feebar bi du fi ñëw ñett yi nga xam dañ koo gàntul yàlla nag te nangul ko feebar bi moo tax yàlla teg ñu feebar bi feebar bi di jaam boo xam ne jaam bu ñàkk solo ci kanamu yàlla nga xam ne du dara ba bañ ko mu def ba bañ ko moom yàlla def ko muy loo xam ne sax pour mënoo koo teg bët ngelaw loo xam ne bii mënoo koo teg bët ndax ndax ak tuuti ba noppi mu ñëw nag la jël la jël yëpp gis nga mbooleem yi ñu daan naqari ba tax ñuy dox doxu ñaxtu yëpp lu tuuti la woon ci kaw li coronavirus def coronavirus moom dafa ñëw mond bi yëpp mu nërmeel ko ci wàll gu nekk na li gën a foor mooy bakkan li mu faagaagal ci ay bakkan yàlla rekk xam nu mu toll wëlbatikuwaat ñaar ñi nga xam ni bii ñoo tabax àddina mu nërmeel ñoom ñoom ñaar ñëpp mu nërmeel leen àddina ñaar ñoo ko taxawal muy xam-xam ak am-am xam-xam ak am-am ñoo taxawal àddina ba àddina sosoo ba léegi nag lépp loo bëgg mu dox ñaar ñooy ñoo koy doxal xam ak am-am xam-xam nag du lu ñuy jàng ci téere wala ci ay livre rek ay kaye lépp loo xam te mu wir rek xam la mais ci yëpp xam-xam yooyu nag bu ñu àndee ak yooyu ñoo mën a tabax àddina ñaar yooyu nag lépp la coronavirus bi nërmeel diggante bi mu fi ñëwee ak léegi li nit ñi financé ci ay milliards kenn xamul nu mu toll te ba ba léegi corona bi jeexul ni mu tëjee xam-xam daara yëpp ñu tëj ko tëj école yëpp tëj jàkka yëpp monde bi yëpp ñu tëj ko kenn mënatu la jàng même bu ñu demoon ba ubbi njàng meet nit ñi seen xel dalul ñemeetu ñoo jàng mënatuñu ko nga gis ni xam-xam toll ñu tëj yàlla tëj bunti xam-xam yëpp ni alal toll mu tëj bunti alal yi li fi ñëwoon ci alal yi yëpp mu yàqte ko yàqate gi mooy yëpp alal yëpp duggaan na ci corona bi te gisaguñ ci benn njëriñ nga xam ni lii kenn mënu ko dul yàlla kon nag nañu delloo suñu xel te delluwaat ci yàlla te bàyyi fi yi ñuy def nga xam ne bu ñu amee lu ñu naqari rek takk ay sagar yu xonq loolu bokkul ci nite mooy la mu ubbi waxtaan bi rek dama ni nit ki su fekkee ni yére yi bala koo sol rek da ngaa am problème yére yooyu ba dee nit dootoo ko sol yére yoo xam ne bala sol rek da am loo naqari too ko sol yére yu xonq koo koy bu dee nit xam ne loolu baaxul loolu rek doy na misaal kon nag te gis nga li ma doon wax sànq ci alal ak am-am. Euh, alal ak xam-xam nga xam ne ñooy tabax alal euh, woykat bu mag ñu koy wax amiru sora mu ahmad sawxi ahmad sawxi dafa wax ne bil ilmi wal maali yabni naasu mulkahumoo lam yubna mulkan ala jahlin wa ixlaali nee na euh, xam-xam ak alal ci la nit ñi tabaxee seen nguur waaye kenn du tabax nguur ci ñàkk ak réer lu am solo la yàlla xam na ko ñàkk ak réer mun la tabax lu mooy toroxte waaye am am ak xam-xam kooku moo mën a tabax teraanga te ñaar yooyu mën a tabax teraanga nag yépp coronavirus dafa ñëw màbb ko kon nag nañ bàyyi xel ci ni nañ dellu ci yàlla dayob dellu nag ndax gis nga fi mu ne nii su fekkee ni bi yaa ngi seetlu jamono gi te nite nga xam ni ñun feebar bi li muy rëy rëy yëgaluñ ko suñu yaram da ngay nekk ci kër goo xam ne ay jullit ñoo fa fanaan ay jullit de bu bët set boo fa nekkee yow bu la yàlla wërsëgalee nga bokk ci ñuy teel a jóg julli da nga julli ba dix heures waa kër ga day mel ni kenn fanaanu fa day mel ni kenn fanaanu ci kër gi ba ñuy nodd ci jàkk yi wala ñu ñàkk nodd wala ñuy julli yëpp seen yoon nekku ci te ay jullit la ñu wooye seen bopp kooku te ñu ngi ci biir feebar bi ci yooyu jamono booba jamono crise bi mu ngi dox nit ñi te di nelaw lànk bañ a julli waaw kooku kooku lu ko dal rek moo ko teg boppam wëlbatikuwaat télévision yeeg yépp ay théâtre ngay dégg ñuy teg ay théâtre rek théâtre nit ñi toog di déglu ay théâtre lànk ba a julli muy ay caaxaan ay mag yu caaxaan ànd ak ay gone yooyu yépp nag ñoon ñun jubluwuñu ci sax lenn pour di yàqal maanaam ña koy def waaye dañuy wan ne taa ba nga koy def julli jot na wala taa ba nga koy déglu julli jot na sëñ bi demal nga julli ji doog ñëw déglu si sa théâtre wala nga seetaan say film wala nga seetaan sa tele waaye waxtu julli jot même bu fekkee nekkoo ci crise waxtu julli bu xasee jot bàyyi la nga doon def lépp nga dem julli ji ñàkk a julli wala sàggane julli bokk na ci li indi balaa bi te nag ñun ni sàgganee julli kenn mënu koo wax lu may maanaam nga nga am seetlu rek julli moom de julli moom amu ci kenn ko mu jaral nga dog say soxla wala nga dog say yitte wala nga dog say waxtaan. wala nga doon seetaan film wala théâtre julli tax nga dog ko say nelaw julli julli jarul la itam say nelaw nga ni naa ko dog yow daal na nga nekk ci la la la nekk na nga nekk ci la nga nekk ba heure boo xamee ni bii mu am nga jot boo bokkee ci ñuy julli nga julli bu la neexee itam sax nga far faagaagal julli nga ñàkk a julli te loolu ak a bare ci dëkk bi aka a bare ci dëkk bi maa ngi ciy teg sama bët ñi may déglu ñu ngi ci teg seeni bët loolu nag ku ko bëgg ku koy def ba noppi bëgg jàmm wax dëgg yàlla bëgguloo jàmm ki jëfandikoo nii nit ba noppi bëgg jàmm te nekk ci crise bu toll nii ak feebar bi ak ni mu garaawee nga xam ne ñooñu jëfandikoo wuñu seen xel te li may wax ni ñun ñëpp ñu ngi ci teg suñu bët kon nañ delloo siwaat suñu xel nañ delloo siwaat suñu xel ah, yi nga xam ni bii gàllankoor nañu nañ ci del ci dellu siwaat muy po mu ëpp mii ah, fettirlu bon yàlla ni ñu li ngay def faale wuñu ko ah yàlla moom yaakaar naa dara safu ko de yàlla dara sabu moo tax yi ñuy def nii yëpp fi gis nga mi réglé na ko ci réglé na ko ci lu tuuti delluwuñu gannaaw waaye ñàkk seet loo ko waral euh, su ko defee nag euh, coronavirus euh, fi mu taxaw dafay taxawaay bu dëgër moo tax tur woowu yàllaa ko ko jox waaye nit nit ñi joxuñu ko yàlla dafa ko jaale suñuy lëmiñ rek ndax tur yi dafa am doole coronavirus taxawaayam seet la te seet dafa foor 777 mooy coronavirus coronavirus soo ko bindee boo ko xisaabee nga calcule ko 777 la juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar te li mu set dafa foor ndax moo tabax àddina euh, bis yi juróom-ñaari bis lañu bis yi juróom-ñaar lañu te te bis yi ñoo meññi weer yi weer yi ñoo meññi at yi yooyu ña at nag ñoom ñoo meññi àddina bi yépp waaye mu nga tàmbali ci juróom-ñaari bis yooyee kon juróom-ñaar dafay lim bu dëgër a dëgër moo tax coronavirus eh, dara mënu koo gàllankoor dara mënu koo gàllankoor mbooleem yi ñuy def yépp di ko def ci xeetu faj faj lu am solo la waaye faj ba gàllankoor ba gën a rëy nga xam dañ ko mooy gàllankoor mooy dellu ci yàlla rek ñun ñëpp buñ dellu woon ci yàlla te dellu ga caaxaane wuñu ko jéggulu yàlla wan ko won ko ne ñoo tooñ te muy dëgg te it ñu dellu bañ bañu delloo gannaaw itam nag ñu continuer ci waxuñu ndax yàlla kenn mënu koo nax nañ ñun ñëpp nañ dellu ci yàlla bu coronavirus bi demee ñu delluwaat ci lañ nekkoon yooyu yàlla faalewu ko yàlla mënoo wax mënoo def lu mu xamul innahu alimun bi saati sudur yàlla nee na xam naa li seen xel xam naa li seen dënn xam naa lu ngeen wax xam naa lu ngeen waxagul xam naa lu ngeen yéene xam naa lu ngeen yéenegul kon bu ñu yéene woon ñun ñëpp yéene rafet parce ak suñu caaxaan yi te muy dëgg ci saasi la fi yàlla jëlee corona bi ndax mu moo ko fi indi mën na ko fee jëlee ci lu gaaw kon nag nañ delluwaat ci yàlla su ko defee nag lim boobu may wax muy 777 nga xam ne mooy limu coronavirus lim la boo xam ne bii turu yàlla woo ko téye di ci ñaan ngir tàggu ci ngir tàggoo ak balaa yàlla mën na la caa jëlee turu yàlla woo ko téye di ci ñaan ngir am ay xéewal yàlla mën na la caa yàlla mën na la caa defal xéewal. rawatinaak nag xasbunaa laaxu wa nihmal wakiil lu toll ne balaa bii moom lu toll ne balaa bii xasbunaa e, laahu wa nihmal wakiil 777 ñu di ko ci liggéey muy kenn koy liggéey wala mbooloo koy liggéey lu mën a fekk balaa bii la ci kàttanu yàlla képp koo xam ni bii am nga jot foo wéete na nga jàng xasbunaa laahu wa nihmal wakiil 777 def ko addi yonent bi ñaan yàlla jële fi balaa bi bu fekkee bi itam balaa bi taxulee ñaan nga am beneen soxla nga jël xas xasbana allahu wa nihmal wakil jël jël xasbana allahu wa nihmal wakil rek nga jàng ko juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar su fekkee da jëkkee juróom-ñaar teg fukk teg juróom-ñaar baax na boo ko safaanee it teg juróom-ñaar téeméer teg juróom-ñaar baax na lu ci mën a am solo rek mooy ne lim bi mat waaye xasbana allahu wa nihmal wakil yii dox doxu ñaxtu yëpp bu fekkee mbooloo am mbooloo dañoo am problème ñoom ñëpp ñu àndandoo kenn ku nekk ñu bokk yéene di bu jàng hasbunallah wa ni'mal wakiil juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar muy 777 ñu tëjee ko salaatu alaane bi ñaan yàlla bu dee balaal yàlla na ko fa yàlla jële bu dee problème bu ñu am la seen entreprise wala seen gouvernement yàlla na ko fa yàlla jëlee. bu dee lu ñu bëgg itam muy xéwal gu war a ñëw ci ñoom ñu ñaan yàlla yàlla indi xéwal ga incha allahu yàlla dina def loolu ci ak ci barke barkeeb asbunallahu wa nihmal wakil kon nag maanaam def suñuy ñaan ba noppi nag ñaan gi ci gën a rëy muy dellu ci yàlla mooy bàyyi suñu jubati yi suñu jubati yi jubati ak suñu doyadi ñaan gi gën a gaaw mooy tegu ci kaw njub taxawal julli te bañ koo caaxaane julli moom fii ñu ngi koy caaxaane rek lu ñu mën a def itam màbbaat nañ ko ndax julli mooy lépp julli mooy islaam julli mooy àdduna mooy alaxira julli mooy islaam lu am solo la su ko defee nag seen mbokk imaam Abdou mbay moo doon def ak yéen waxtaan yi di ngeen ñaan nag mboolem rëq-rëq yi am ci biir ni ngeen ñu ko jéggal képp koo ci xam ne itam dafa cee yaakaar ni dañ koo wax wax joo xam ne bii dañ ko jëme ci moom jëmewuñ ko ci kenn wax ji ñun ñoo ci jiitu yëpp jàngale rek ci kaw ñu delluwaat ci suñu borom yàlla jëlal ñu suñu jàngoro ji ak balaa yi yàlla indil ñu xéewal yoo xam ne àdduna ak lay doon ñu am texek àdduna gu alaxira kon nag nañu ko di waxtaan wi nañ ko yàlla nañu def yàlla na yàlla dogal ñu dégg ko ñu dégg ko xel te bañ koo déggee xool waxtaan wi yal na yàlla def ñu dégg ko xel te bañ koo déggee xol asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu